wanfaanaa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaanaa baada ma amaatanaa wa ilayhi nushuur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy bàyyi xel ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Mouhamed Diawo Diallo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli ci yonentam bu tedd bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima xam ngeen ne bokk na ci xéewalu yàlla yi mu xéewalal ñu xéewal ba ñu jóge ko jëfandikoo waxtu su néew ci ginnaaw mu di ñaari xéewal ëpp nañ ko sax waaye ñu tànn ci ñaari xéewal yi rekk benn bi di xéewalu ibaadaat beneen bi mooy xéewalu muamalaat xéwalu ibaadaat ñu ne mooy xéwalu jaamu yàlla ba jullit yi jóge ko def waxtu su néew ci ginnaaw tuuti rekk mooy ba ñu déggee noddkat bi di noddu muy yëkkati baat ngir jullit yi ñëw wuyu ci ca la nga xamante ne mooy fale leen buur yàlla tabaraka wa di am ak ñoom audience odiance boobu noonu nag dafa am la koy déclencher la koy déclencher nag mooy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 أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح asalaatu xayrun minan nawm asalaatu xayrun minan nawm allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah دائما وابدا لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة عالية رفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا التي وعدته إنك لا تخلف الميعاد mbokk yi noddkat bi bu yëkkatee bii baat su ko defee njeexantalu nodd bi mu naan julli de moo gën nelaw ba ngeen di nekkee julli moo gën nelaw ba ngeen nekkee di ko nelaw su ko defee képp ku dégg baat bi nga daal di puus mbajj bi ndànk jalal sa bopp laablu jàpp génn sa kër wallahi njëlbeenu jéego bi ngay séq na sa xel dem ci xadis ba yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam wa bi kulli xutwatin tamsiha ila al masajid sadaqa beneen riwaaya mu ne wa bi kulli xutwatin tamsiha ila salaati sadaqa sallallahu alayhi wa nee nañu bépp jéego ba julit bi di séq di dem ci julleekaay ba wala ci jàkka xamal ne tànku ndeyjoor mu ngi génne sarax tànku càmmoñ mu ngi génne sarax ci beneen riwaaya mu ne bépp jéego ba jullit bi di sëq di ko jëmale ci jàkka ba wala ci jullikaay ba tànku ndeyjoor ba mu teg dinañ ko yëkkatil daraja bindal ko yiw tànku càmmoñ ba mu teg dinañ ko ay effacer bàkkaar wàccel ko ay ñaawtifam allahu akbar mbokk yi ndegem dem jàkk rek ngay amee faggu fa ngay faggu yiw wi wallahi ñàkk dem si jàkk ja loolu moom kenn waru koo cautionné kenn waru ko xalaat sa ba nga di ko def amul dara ba dara booloo jeex la lay teree dem si jàkk ci waaw ndegem boo tegee sa ndey ndeyjoor ñu bindal la tiyaabo yëgatil la sa daraja fayal boo tegee sa tànku càmmoñ ñu effacer la sa bàkkaar wàccal la say ñaawteef loolu ana feneen foo ko mun a amee fudut mbaagante bi ngay def diggante kër ga ak jàkka ja kon mbokk yi nañ leen xam jàkka la mu pesé ci kër ci quartier bi nañ leen xam jàkka la mu pesé ci kaw suuf si nañ leen xam jàkka la mu pesé ci territoire bi ñuy defe ne nodd beeg la di julli ñuy tari fajar alquran da leen di déranger loolu ñu nekkee moo leen war a nelaw boobu ñuy nelaw ndax bu ñu nekkee liir ba léegi ñu ngi nelaw ba léegi mënuñoo doyal ci nelaw noddukat bi di la wax ne julli ba tax yàlla bind la moo gën nelaw bi nga nekkee nga yow nga jël sens contraire bi jëmale ko ci waa jàkk ji doo jëfandikoo sa xel bi nga nekkee liir ba ni nga toll nii yaa ngi nelaw ba léegi mënoo doyal nelaw te nelaw bu mag ba nga lay xaar bés buñ la suulee ci sa biir bàmmeel keroog da nelaw ba sa yaram bàyyeekoo sa yax yi waaw kañ mooy nelaw déggintaan fii dañuy entraînement rek bu dee nelaw moo tax a dem si jàkka yow xaaral rek keroog nelaw bu mag ba lay xaar boo ko tàmbalee wallahi da nelaw ba sa yàpp yaram tàggale ko ak sa yax xanaa loolu mooy nelaw bu mag bi waaw moom boo nelawee moom di nga boo jógul tamit dinañ la yee buñ la yeewut am na loo xamante ni dina ñëw déranger la nelaw bi sax moo ne man léegi sonn na jógal waaw nelaw bi moo la naan sonn naa jógal léegi man duggee naa la fu ne jaar naa la fu ne munoo jug munoo yeew léegi man maa ngi dem bàyyi la nga tëdd xanaa kon jëmm juju day dina jug su booba waaye nelaw dëggantaan boo xamante ni dama ne da ngay nelaw ba sa yaram bàyyee ko ak sa yax sa yaram bàyyi sa yax xanaa loolu mooy nelaw képp kuy xalaat nelaw boobu boo déggee noddukat bi naan asalaatu xayru min an naw boo xalaatee nelaw bu mag boobu mi di la xaar te du jaas yan na yéex mais kenn ku nekk di nelaw kenn ku nekk di nelaw te boo koy nelaw kenn du la yee képp ku xalaat nelaw boobu boo déggee noddukat bi naan julli moo gën nelaw bi ngeen di nelaw wallahi mbajj bi da nga ko naan xaar ma fi ki nga nekkal néeg bi da nga ko naan xaar ma nga dem songu ndox waaw jàpp daal di génn sa kër waaw tànk boo teg yonent bi nee na tànku bi bind nañ la si yiw yëkkati nañ la sa kotaa bonus fa yàlla tànku càmmoñ faral nañ la pàkkaar moo ne booy dem jàkka bi rek la de dem bi ak ñib si lépp bonus boobu yaa ko moom yaa ko jëf allahu akbar yan nañ ko buur yàlla jombalal mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot xam ngeen ne bés ni ki tey di yowmul jumaa bu jotee dina dinañu waxtaan ak yéen ngeeneel ba nekk ci yowmul jumaa di bésu ajjuma bu ñu ne yowmul jumaa ñu ne ngeeneel yu bari bari bari bari lu kenn dut mën a lim ci waxtu su gàtt waaye nag ñu doyloo ci ren rek bokk na ci ngeeneel yooyu ci yowmul jumaa la yenentu bi ne sallallahu alayhi wa sallam nee nañu bokk na ci gën ci bés yi nga xamante ne mooy bés yay fenk ci yéen doomu aadama yi bési àddina yi bés bi ni yowmul jumaa bés ni ki tey mooy gën ci bés yi ba tax na yonent bi nee nañu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fadaailu yowmul jumaa ngenee lu aljuma yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam adallallahu an al man kaana qablana fa kaana lilyahudi yowmu lsabti wa kaana linnasara yowmu l ahad fa jaa allahu bina fa hadaana allahu li yowmi ljumati rawahu muslim mbokk yi fii ma rawahu muslim xadis ba muslim solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na adalla allahu an al yowm aljumati man kaana qablana yàlla dafa réeral bésu arjuma ci xeet ñu ñu jiitu woon yàlla daa jël bésu arjuma mu làq ko waaw mu làq ko foo xamante ne amul kenn ku fa ko gis amul kenn ku fa ko ku dem foofu bi gis ko amul kenn ku gis yowmul juma béréb ba ko yàlla làq waaw dafa làq yowmul juma xeet ñoo xamante ne ñoo ñu jiitu woon ba tax na yàlla wonu leen yowmal jumaa bésu ak aljuma yàlla wonu ko kenn ci xeet yi ñu jiitu woon yonent bi ne fa kaana lil yahud fa kaana lil yahud yowmal sabti yàlla daal di jël samdi baaxee ko al yahud waaw xeet yu ñu naan al yahud ñu ko naan juif yàlla daal di leen jox bés bi ñu naan samdi di yowmul sabti ci arab bisu samedi la yàlla baaxee juif yi waaye buur yàlla tabaraka wa taala ba léegi mu làq yowmul jumaa xeet yu ñu jiitu woon yonent bi nee na wa lin nasaara wa kaana lin nasaara ahad yàlla daal di baaxee nasaraani bés bu ñu naan dimanche di yowmul ahad muy dimanche yàlla baaxee nasaraan yi bés bu ñu naan dimanche fa jaa allahu bina gannaaw bu ñu yàlla andee ñun ñun mi di xeetu seydina muhammad fa hadaana allahu li yowmil jumaati yàlla dal di ñu offrir jox ñu kado mu baaxee ñu bisu juma ak sekere ya fa nekk kon mbokk yi ñu déggee ci maanaa xadis bi ndekete yowmul juma yàlla dakaa làq fa ko kenn gisul ci xeet yu ñu jiitu woon yàlla dakaa xañ xeet yu ñu jiitu woon kenn gisu ko kenn xamu ko kenn nekku woon sax di ko xalaat ne bés boobu sax am na waaw yàlla daal di baaxee juif yi ndax juif yi xeetu yonentu yàlla Muusa alayhi salaam yàlla daal leen baaxe bés bu ñu naan samedi yàlla jox leen samdi mu doon bés bu mag ci ñoom mu doon seen bésu feet mu doon bés bu ñu ormal mu doon bés bu ñu jox dayo mu doon bés bi nga xamante ne ca la ñuy def lépp lu leen di jokkale ak seeni borom subhaanahu wa waaw bésu samedi leen yàlla gaaral waaw bisu samedi la leen yàlla jox ñuy sellal seen digganteeg seen borom waaye ñuy sellal seen digganteeg seen yënant xataa boo demee ci suratul aaraaf di nga fekk uh, aaya ba yàlla di wax ne mu wàccee mbugal mbugal bu mu wàccee ci kaw ñoo xamante ne dañ leen tere ngir ñuy nappi yowmul leen tere ngir ñuy nappi yowmul sabti yàlla dareen tere ñuy napp samdi waaw bés bi nga xamante ne dañuy nappi nag bés bu nga xamante ne dañuy teg seeni mbaal ñuy dem nappi keroog jën yi duñu bëri waaye buy bëri tamit du mel ni bés bu ñu nappul yowmul sabti bésu samedi duñu nappi kenn du dem napp lenn kenn du dem nappi ci géej gi keroog la jën yi di gundaa daal ci ndox yeeg dex yeeg seen sewnde yi waaw léegi nag yàlla am ñu mu ne bu leen nappi samdi ngir ñu ormal bés ba leen yàlla jox waaye am ñoo xamante ne dañoo def seen pexe ba ñu nappi samdi yàlla daal di leen jéppi ah yàlla daal di leen jéppi wàcce su ñoom bugal ñu doon golo yoo xamante ne fa lañu ñu tabbee dugg ci àll bi ibnu abbas radiallahu anhu nee na sax lenn ci golo yi dañ doon dem seeni kër seen njaboot yi ñu di leen dàq golo bi di wax di yuuxu moo ne loolu muy wax mooy da day wax soxnaam ne man la sa boroom kër muy wax doomam ne leen man la seen baay xanaa xàmmewu leen ma ah yéen a ngi may dàq nii ko defee ñooñu duñu dégg la golo gi di wax duñu dégg la rabbu bu di wax su ko defee ñu jël yet dàq ko loolu yëpp pour wane ne rek tere yàlla képp ku ko salfaañe tilka xududullah fala taataduha loolu mooy frontière yàlla bu leen ko jéggi tilka xududullah fala taqrabuha loolu mooy frontière yàlla bu leen ko jege ah allahu akbar yàlla tere leen nappi yowmul sabti nappi samedi yàlla tere leen ko ñu di dugal foofu lu si bokkul ñu teg seeni pexe ak seeni kalan ñu naan yi yaay ñoom nappi wu ñu jën yi ñooy plongé si seeni biir mbaal ya ñu teg ci géej gi wala ci dex yi hmm. yàlla ne leen hmm, baax na rek waaw kon ñooñu la tax yàlla mbugal leen parce que dañoo jël bés bi nga xamante ne yàlla jox na leen ko ngir ñu di ko jaamoo yàlla ñu di si sellal seen diggante seen borom ñu jël bés boobu di si di si di si def affaire caay-caay di si def affaire mbóosóor waaw moo tax yàlla soppi ña nekke woon di salfaañi tiralinu yàlla ñuy jéggi frontière yàlla di jël tiralinu yàlla di ko soppi di ko defee neneen lu wutek la yàlla wax yàlla ne leen soppi leen ngeen doon golo waaw yàlla mbugal leen wàccee si ñoom mbugal mu soppi leen ñu doon kuunu qulna lahum kuunu qiradatan xaasiin nekk leen golo spécial yu nga xamante ne waaw di ngeen xëj ak nit ñi fen waaw su ko defee loolu mooy yowmul sabti yàlla jox ko ñi nga xamante ne ñooy al waaye yonent bi nee na wa kaana lin nasara yowmul ahad yàlla daal di jël mennum bés bi nga xamante ne benn la ci bés yi mu daal di ko jox nga xamante ne mooy nasaraay nga xamante ne mooy dimanche moo tax nasaraan yi comme ñoom xam nañ ne xeetu yonent yàlla Muusa di juif yi dañoo fowee seen bés ba sell bés bu sell ba toll ni samdi ñu di ko caaxaane ba yàlla mbugal leen nasaraan yi bu ñu ñëwee ñu jàng seeni téere am na xeet yi ñu mbugal bés bu sell bañ leen jox kon ñun bés bu ñu jox ni buñ ko fowe buñ ko caaxaane ñoom ñu respecté seeni bés moo tax yàlla yénkeewo leen leen yàlla jox leen bésu dimanche gis nga bésu dimanche bu jotee ña nekk ci jàngu bi nu ñuy waajale seen bopp tuwaletu ba set defar su ko defee ñu dem jaamu la ñuy jaamu waaw yonent bi nee na nag fa jaa allahu bina yàlla daal di ñu andi ñun waaw ñun xëytu yonent yàlla muhammad yàlla daal di ñu andi fa hadaana allahu li yawmil jumaa mu daal di ñu ofrir kado bés bi nga xamante ne moo dajale mboolem bés yi waaw mooy jumaa bés bi nga xamante ni dafa dajale bés yi waaw yàlla daal di ñu baaxe bés bu mottali bés yi mooy bés bu dajale bés yi su ko defee mu nekk yowmul jumaa ñu ne yowmul jumaa boobu noonu nag ngéneel ya fa nekk bari nañu lool waaye ba léegi rek ñu tënk ci sunnay bés boobee ndax am na ba léegi am ñoo xamante ni dañ ñu koy laaj ci suñu PV am ñoo xamante ne ñu ñu koy laaj ci téléphone kon ñu dégtal leen gën ko war a mën a fësal gën koo war a mën a yaatal ci waxtu wu néew bi ñu may ci waxtaan bi ñuy ànd ak yéen fii ci réew mi FM 97.5 ci waxtaanu fajar ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla may dégg ak topp mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot min sunnanin yowmal jumaa bokk na ci sunnay bésu àjjuma bés ni ki tey al iqtisaal càngat bu ñu càngat nag ñu ne dangay ngay sang sa yaram waaye da ngay nettoyer fépp foo xamante ne euh, salte mën na faa làqu mu mel ni kawaru poxotaan mustaas ak kawaru naq ak weex waaw sa baaraamu we moo xam baaraamu loxo la moo xam baaraamu tànk nanka lelli loolu bokk na ci hygiène bi nga xamante ne diine islam moo ko tiral te seen professeur bu mag bi di yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngal ñaari li sunnay bés yowmul jumaa mooy at tabkiir ilal masjid teel a dem si jàkka ji sallallahu alayhi wasallam nee na teel a dem si jàkka ji bokk na ci bénéfice bi mooy wa bi kulli xutuwatin tamsiha ilal musalla sadaqa bépp jéego ba jullit bi di sëq di ko jëmale ci julleekaay bi sarax ba muy génne la ñeel ko moom julit boobu waaye yonent bi nee na bisu ajjuma bu tero dinañu samp bépp buntu jàkk malaaka yi lay doon seen taxawaay foofu mooy yow jullit bi boo ñëwee nga ne wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahuma agfir li zunubi waftah li abwaaba rahmatik nga julli ci yonent bi ñaan yàlla mu tijjil la buntu yërmandeem nga daal di dugal sa tànku ndeyjoor malaaka yi daal di bind sa tur ci registre bi nga xamante ne fa la ñuy bind ña teel a ñëw ak ñu topp si ñu teel a ñëw ñi loolu bokk na ci lu la koy may teel a dem si jàkk ja yowmul jumaa teel a dem si jumaa ja mooy at tabkiiri a dem si jàkk ja ñetteel bi mbokk yi mooy atatib waaw ngir laal gétt bu neex nga laal parfum bu neex parfum boo xamante ne islaam a ko autorisé ngir jullit bi mën koo jëfandikoo ndax béréb boobu ngay dem du ñàkk nga daje fa ak ay yoo xamante ne ñoom de bëgguñu xet bu naqari xet bu neex moo leen génnal xet bu naqari ba tax na yow mii di dem ci jàkka ja gannaaw bi nga sangoo nga teel a dem na nga laal gétt bu neex parfum bu neex a neex a neex waaw boo ko amul nag na nga laal lu neex loo xamante ne dina dégager xet bu neex waaw ñeenteel bi mooy qiraatu suratul kahfi qiraatu suratul kahfi mooy nga jàng saar bi nga xamante ne mooy suratul kahf suuratul kahf keroog ñu di leen ko waxtaanal suñu lenn ci suñuy waxtaan yi mooy saar bi nga xamante ne mooy suratul kahf suratul kahf ñu ne mooy dix-huitième saar ci alquran suratul kahfi ñu ne mooy saar dix-huitième saar ci alquranul karim ñu ne suratul kahfi mooy euh, fukkeelu saar ak euh, juróom ñett mooy alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaba walam yajcal lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashira almuminin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 falaallaka baaxiun nafsaka ala aathaarihim in lam yuminuu bi haada alxadisi asafa inna jacalna ma ala alardi zinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu amala wa inna la jaaciluuna ma alayha saciidan juruza am xasibta anna asxaaba alkahfi wa raqiimi kaanuu min aayaatina cajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا sadaqallahu alazim mbokk yi fukkeelu aaya fa la ñu taxaw ci suratul kahf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jàng suratul kahf qiraatu suratul kahf jàng suratul kahf mooy dix-huitième saar ci alquran nee na képp ku ko jàng bés ni ki tey keroog bés bi di delsi yàlla dina la montel leeru alquran dina la montel leeraayu saaru alquran bi di suratul kahf waaye dina la montel leeru aaya ba nekk ci suratul kahf leeraay boobu nag ñoo lay téye ba doo ci ay bakkaar leeraayu alquran ak leeraayu saar bek aaya ya fa nekk ñoo lay won xeetu ragal yàlla ñoo lay moytandikuloo xeetu mooy yàlla daanaka jàng saar bi daal dalay ngalaab téye la ba doo babbeeku di dugg ci lala seytaane di xoy ci xool ci wax ci jif wala ci melokaan kon saar bi ëpp naa sàggane ñàkk kaa jàng yowmul jumaa bokk na ci yowmul jumaa mooy juróomeel bi mooy lépp su axsanu waaw sol yére bu gën a rafet ci sa yére yi waaw ñu tàmmu ci nag yére bu weex boo ko amul nag beneen bu dee am na baax na bokk na ci lubsu ahsanu siyaab bur yàlla nañu ci alquran xuzu zinatakum inda kulli masjid na ngeen jëfandikoo seen yére yu rafet yi jëmale ko ci bépp jàkk ba ñuy jullee ba ñuy jaamu yàlla kon képp ku yore yére bu rafet zina yére bu taaro sol ko ndax yàlla la ko wërsëgal na nga ko jëmee wane ko taaral ko ci bés bi nga xamante ne moom la la yàlla wërsëgal nga bokk ci xeet ñañ ko jox di xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mbokk yi bokk na ci juróom-benneel bi mooy kasratu salaatu ala nabi bari la ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi nee na inna afdal ayaamikum yowmal jumaa bokk na gën ci bis yay ñëw di jaar di jàll ci bésu àddina yi mooy bésu àjjuma moo gën ci bésu yooyee kon la ñu yonent santaane foofu mooy fa akthiru min assalaati alayya fa akthiru alayya min assalaati fiihi fa akthiru min assalaati alayya fiihi na ngeen bari la ngeen di julli ci man waaw na ngeen bari la ngeen di julli ci sama jëmm ji na ngeen bari la ngeen di wax ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ali ibrahim allahuma barik ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ak yeneen format ya yonentu bi santaane sallallahu alayhi wa sallam ndax buur yàlla moo ñu ne ci alquran ci sutu ahzab inna allaha inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما jëf ji nag yalla nee na mag samay malaaka yi dinañ si nekk ñu ngi koy def kon yéen it tamit na ngeen nekk si jëf jooju mooy di julli ci yonent tiwi di ko ñaanal yalla ko ñaanal yalla njëggal ak yërmande bu yàlla yërmande la bu malaaka yi yërmande la ak njëggal waaye ñun bu ñuy def nag ci moom loolu day dellu si ñun loolu xéewal si ñun sallallahu ala muhammad sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammad kon nee na na ngeen bëri la ngeen di julli ci sama jëmm ji allahuma salli wa barik ala nabiyik sallallahu alayhi wa sallam na si juróom-benneel bi mooy ashiwaak soccu yonent bi nee na ashiwaak soccu de mardaata li rabbi ding si am ngërmande yàlla wa mutaharatun fam ding si am gémmiñ bu laab sa gémmiñ dina laab sa gémmiñ dina set waaye ding si amaale la nga xamante ne mooy ngërmande yàlla moo ne keneen ko du bi mu ngi soccu naam keneen ku dul mu ngi socc bu ñam naam waaye moom lenn la ci am mooy lan gémmiñ bu set waaye ngir mànde yàlla yow mi di julit bi yow ko yàlla jagleel subhaanahu wa kon julit bu mu xeeb ay détails yu ndaw yi juróom-ñaareel bi wala juróom-ñetteel bi mooy taxariyi saatun istijaaba xemmem dabu géem a kar géem a nangoo dajeg waxtu wi nga xamante ne mooy waxtu wi nangu ñaan ci bés bi kon yonent bi nu mu ko waxee nee na am na waxtu bi fi nekk julli bi du taxaw di ñaan boromam lu dul buur yàlla dina ko nangul lam koy ñaan kon nañ leen bokk tal loxo di ñaan yàlla keroog bu ñu julee fajar ba jënt bi di soo ñuy ñaan yàlla ndax bésu ñaan yàlla la bésu tàllal loxo yàlla la yal nañu yàlla nangul yal nañu yàlla jéggal amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñuy wax ne jumaa tayba mubaarak ñu ñaan yàlla suñu boroom yal nañu yàlla nangul taqabalallahu minna wa minkum saalihal amalana allahumma ya rabbi aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir ñay tas xibaar ñu ngi ne taxaw ñu fas yéene leen jébbal béréb ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa di ko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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu